Bienvenue sur Salam Vision. mbokk yi asalaamaaleykum ñu leen di gërëm leen gëstu tey bii ñu koy jëmale. Euh, si reportu élection locale yi maanaam mooy élection gox-goxaan yi njiitu réew mi jël nay kàddoom ni élection yooyu fii ak at 22 février 2002 la ñuy am élection locale bii mooy ñetti yoon ñu koy dax fii ci réew mi jamono ji nag am lu ñuy wax dialogue politique dajale kàngaamu politique yëpp. muy opposition muy mouvance présidentielle et les non-alignés Sénégal yi bare ñoom euh, ñu ngi koy ñaw ma ne lan moo tax ba léegi ñu teg tànk ci élection locale yooyu bi nga xam ni ñi fi nekk maire ci gox-goxaan yi seen mandat jeex na am na tey ñaari at askan bu bari gis ñu seen bopp ñoom ñi ngi ñaan mairie yi ñu tekki seen ndombal tànk abal leen que seen mandat dafa jeex euh, élection gox-goxaan yooyu njiitu réew mi ne da koy yóbbu ba mille euh, février deux Sénégal yi bari tiit nañu jaaxle nañu est-ce ay élection couplée muy législative ak élection locale muy gox-goxaan yi coow laa ngi ne coobay ci biir réew mi fépp foo dem ba si biir kujje bi muy opposition muy mouvance présidentielle. lenoon na ñi euh, askan bi ndaw mag jigéen yàgg nañu am ay lënt leen sélection gox-goxaan yooyu lan mooy njëriñu maire yi fi nekk euh, seen mandat jeex na depuis 2019 sénégalais yi gisuñu seen bopp euh, maire yi jàppale ñu askan bi ay maire yoo xam ni liggéey ñu fi tey liggéey ñu fi ëllëg seen bopp lañ fi nekkal askan baa ngi nii Euh, ñàkk ndox ñu ñàkk ay jumtuwaay mel ni courant lu mel ni euh, ay ñàkkum xëy loolu yëpp am na si biir gox goxaan yi ay maire yoo xam ni dañ fi nekk pour seen bopp nekk ñu fi pour askan bi ma ni euh, élection lañ jëm at moo si yi ñoom dañu fas yéene far xar seen tànk tubay indi beneen doxalin bu bees jëmale ko si élection gox goxaan yooyu li ñu pare nañu nag kenn mootul nax kenn Sénégal lu mu bëgg ak ay maire yoo xam ni dañu am ay gis-gis yu bees mais du maire yoo xam ne dañuy toog seen bureau climatisé di buntu xatal askan di leen fitna loolu teguñu ko fenn te loolu dax na Sénégal élection gox goxaan yi euh, ñu ngi koy waajal nag at rek moo si des te boo xoolee ak yàggul askanu suñu gaal nañu muñ te ngeen tànn koo xam ni ëllëg na amal njëriñ seen gox goxaan ba mën a saafara seen i jafe-jafe seen i mbëbët mais maire yi ñu gis maire yi ñu fi gis loolu euh, ñu bari liggéey am nañu liggéey am na ñoo xam ne liggéey yu fi dara loolu du commune commune dañ la fal sur le plan politique kan moo la fal askan bi tey yaa waroon tam am ay pastef di leen di recevoir lañu leen dalal di waxtaan ak ñoom leen tàttaan euh, meeru tey yi yeneen doxalin la ñu am moo tax ah war nañu fagaru de askan bi mer nañu ba futu les maires yi ñu fi gis liggéey ñu fi dara seen bopp lañu fi nekkal euh, di woo nag le ministre bi nga xam ne lañu chargé goxu xam ne di Omar Gueye jamono yi xam ngeen bu ñu génnee si ay événement maire yi ba leen taal euh, kan moo leen taal mooy askan wi man nag euh, war ñu woon taal maire yi mais yoo xam ni fa lañ ay extrait de naissance muy kayitu juddu loolu bu ñu ko taalee rek dafay indi ay gàllankoor euh, jëmale ko si askan bi ñiy def examen ñiy soog a juddu euh, muy leneen leneen boo xam ne ay papiers yoo xam ne c'est urgent ñu bare tey ñu koy jooy tey xooleen tey ñaata mairie lañu lakk si biir Sénégal tey euh, Kolda Dakar fii partout communes yaa ngi nekk si ay jiixi jaaxa nekk si ay jafe-jafe askanu Sénégal nañu bàyyi bu ñu meree rek tal mairie yi te mairie euh, man mi wax ak soxla naa la lan mairie soxlaa fa ay këy muy yenn euh, papier yi euh, war na ko déposer mais li ñu gis tey tey tey nekk na mbir mu jéggi dayu moo tax war nañu xoolaat suñu bopp bu baax saa yi ñu meree taal ay mairie toj ay ay machine loolu du dëgg du yoon parce que mairie ñëpp la soxla fa la suñuy papier muy carte d'identité muy euh, bu pièce boo soxla rek euh, muy extrait naissance mairie moo la koy jox nañu xoolaat suñu bopp bu baax ànd ak dal ànd ak yar ak teggin euh, maa ngi gis dem si benn vidéo fële ca Kolda benn village monsieur le maire xolam dafa jeex partout toj nañu mairie yi ma ni loolu war nañ ko xoolaat bu baax a baax baax di waaw aussi le président de la République monsieur Macky bi nga xam nag moom mooy jiite réew mi euh, mu jéem a bu baax la population sénégalaise population euh, bi sonn nañu population bi gisatuñu seen bopp si ndóol mi euh, xale yaa ngi taxawaan président Sall ah ne dina jël ay motuwaay yu mot sëkk cent cinquante milliards jëmale ko si ndaw yi ma ne les communes d' arrondissement yi xam ñoo fi ñoom. Euh, seen mandat dafa jeex am na fi ay maire yoo xam ni mosuñu def sax askan bi mosuñu leen faale et pourtant bu élection ñëwee nga gis leen ñuy kaddi kaddi euh, sol seen i bés ñëw fattal askan bi sonal leen pour ñu watal leen saa ñu amee ay bàtt du muy askan bi loolu teguñu ko fenn ma ne luy maire maire dafa war a euh, di di di jege askanam maire dafa war a di. seeti askanam yi leen nemmeeku guddi ak bëccëg xam seen euh, mbébét sur le plan de la santé li euh, jëm si mbirum koom li jëm si mbirum euh, éducation l'environnement mais yi bari tey liggéey ñu fi dara si réew mi lañu fi nekk pour que wanewu ak politique ma ne nañ xoolaat suñu bopp bu ñu bëggee un Sénégal émergent un Sénégal bu mucc ayib defaraat jikko yi lañu xolaat suñu bopp saagante yi xasante yi monsieur le maire à tous les maires du Sénégal à toute les communes dañu war a góorgóorlu fas jom que poste yooyu ñu leen jox askan bi moo leen fi teg te mini municipalité mairie mairie di ñëw ah na nekk ay élection yu doy waar askan bi ñooy jël seeni xob sànni ki leen doy ñoom la ñuy voter li ñu gis euh, pendant les cinq ans presque sept ans def ko léegi seen mandat jeex na depuis mille depuis deux mille dix ñu bare liggéeyuñu fi dara euh, askan bi gis ñu seen bopp ma dañu nekk au vingt et unième siècle war nañu jàppale askan bi Sénégal war na koy dépasser cadre bi ñu pour suñu réew mën a gën a jëm kanam président bi woote un Sénégal émergent encore une plus di sensibiliser les Sénégalais ñu gën a góorgóorlu que caaxaan jeex na fii ci réew mi euh, sur tous les plans bu ñu bëggee réew mi développé tey moo tey gëstu bës bi jëmale ko sur les communes d' arrondissement que élection yi at rek moo si des euh, ndogal bi wàcc na 22 février 2002 euh, yàggatul en attendant la balle est dans le camp de toutes les communes d' jàmm ak jàmm beneen yoon mbokki yi incha allah jërë ngeen jëf.